jubbil na ñi si rajo bi nañu ñu ko bal euh, donc ñu euh, dégtal leen ko laata ñuy dellu si waxtaan bi.

Dodo vidarmale putet. People believe in the final narrative. mu nekk les Sénégalais de Paris ah. voilà xam nga xam nga xam nga xam nga Moustapha mi ngi ma naan ñii ils vont quand ma ne ko ah, ñii li ñuy daj pour am visa moo gën a garaaw lii. mais voilà <laughs> c'est-à-dire donc lii danañ ko jaral benn journée la rek quoi. mais mais voilà cest xam nga parfois nit ñi nee la. Euh, on a dépassé l'ère bi nga xam ne nit mën na sàcc élection. Mm-hmm. en fait <laughs> sàcc élection dafa bëri ay façon maanaam sàcc élection bi nga xam ne moo xewoon nga ñëw buur urne ba mu fees. bi nga xam ne temps boobu y avait pas da amuloon ay ay mbañ gàcce ay affaire bon voilà mais léegi léegi euh, système bu bees bi en fait li li lu mën a tax ñu ne l'élection est irrégulière mooy quand tu crées les conditions pour que le vote ne se fasse pas comme il se doit c'est-à-dire euh, boo gisee lii par exemple c'est cette queue là qui va presque sur des sur, sur un kilomètre oui. mais Cinq voilà c'est décourager même l'électeur parce que am na électeur boo xam ne bu gisee bu wanee rang sur une queue cinq kilomètres quand même tu ne lui facilites pas facilite pas la chose mm. ah alors bi waroon nañu xam ne que bu ñu gisee la détermination des gens de la diaspora mais ñu créer quand même. Euh, euh les conditions conditions yi xam ne. yokk bureau de vote yi et cetera. Mm-hmm. mais là quand même tu vois que bu fekkee ne ku mel ni man la il va prendre ses bagages rentrer. Ouais. parce que bon voilà il va pas passer une journée sur une queue qui leen ko. Ah, jaral leen ko jaral mais xam nga lii mooy tax tamit que nit ki en tout cas certains hmm. partis vont estimer que ah ñun lii on l'a fait exprès pour que hmm. diaspora bi bañ a voter parce qu'on a vu que diaspora bi peut-être ils sont dans le camp peut-être de l'opposition je ne sais pas quoi hmm. que toi tu crées les conditions yoo xam ne tu vas les décourager du ñu mën a voter normalement euh, ce qui se passe aussi dans dans dans ici au Sénégal c'est-à-dire euh, loolu mënuma ko tuddee sàcc mais c'est des irrégularités yoo xam ne mën na entacher la sincérité du scrutin. Mhm. mooy li ma la wax rek quand le matériel n'est pas sur place wala comme lu xew Kër Massar nii. parce que loolu yëpp ay xeetu <laughs> ay xeetu njuuj njaaj la quand mhm. parce que je ne pense pas que administration bi comme je l'ai dit tantôt xamul woon ne que la départementalisation de Kër Massar dina impacter sur le scrutin. loolu kay war loolu ñëpp boo jëlulee boo jëlulee mesures nécessaires pour euh, pallier à cette yaaka tey laay wax wala en tout cas tu l'as fait exprès pour en tout cas affaire yi bañ a jaar yoon. par euh, que mën nañu jël Gomis d'abord. Ah, waaw bu ko defee ñu continuer si. Euh, Cheikh Tidiane Gomis. waaw euh, jërëjëf jërëjëf. tey nekkuñu nekkuñu stade de. muy jërëjëf tey élection